abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yi synchronisation ndax nekkul jamono bi ñu toll nii forme boo xam ne rek ndaw ñi daal di nañ koy jël ngir wane seen naqar ci Ousmane Sonko niñ ko teewee ci kaso bi di sàkku nag ngir ñu daal di koy libéré ak détenu politique yi nga xam ne rek ñoo fa daal di ne waral nag ñu samp ab ngir synchronisation bi nga xam ne rek moo daal di xew ci espace public yi est-ce que du jur psychose boo xam ne rek day tax nag ñu daal am ay problème maître El Hadji Diouf bokk nag ci ñi nga xam ne rek dañuy subir boobule problème ba tax fukk ndaw ñi gis rek benn rek lañ koy daal di wayal mooy turu Ousmane Sonko te loolee mën nañ ne moom mooy li fees jamono bu nekk rek fu mu tasee ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy ndaw ñi te moom mii di Ousmane Sonko bu fekkente nanguloon nañ ko li ko yàlla may duñu sonn tax nag jamono bi ñu toll nii ci stade yi ak fépp foo xam ne ndaw ñi dañ fay dajaloo lenn rek ngay daal dégg muy Ousmane Sonko leader bu pas Pastef boobu nga xam ne jamono ji mu ngi ci loxo yoon kon mu mel ne ñiy sàkku actuellement libération bu Ousmane Sonko bari na lool ndawi Sénégal nekk ci premier rang bi fa yéene jàppale pacifiquement waral bis bu yàlla sàkk ñuy way turu Ousmane Sonko di wane seen nameel ci moom ak engagement bi ñu amoon démb ci moom muy gën a yokku gannaaw ba nga xamee ne tëj nañ ko wante kat tasaare ba mu tas parti bi nga xam ne rek moom mooy Pastef loole mën nañ ne bu ñu sukkandikoo ci euh, ñi nga xam ne rek ñoom ñooy euh, ndaw ñi dañoo daal di gën a fësal seen àndandoo ak seen koy jàppale euh, kii di président Ousmane Sonko bi la yoon nag mën nañ ci beneen facette bu bokkut ay manifestation comme niñ ko miine woon bu njëkk wantekat ci nawetaan yi ci match yi nga xam ne rek day faral di am mën nañu ne stade buñ mën a yéeg bala ñuy wàcc turu Sonko dina fa daal di jib loolee di boole sax ñaari équipe yëpp rek ñu àndandoo naan ko Sonko Sonko namu nañu la.